bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah tey jii mooy guddig juróom-beel gi ci koor gi naafile gi tey ñeenti rakkaa la rakkaa bu ne fatiha benn yoon alam nashrah ak xuruwalaahu atundu ci na ñetti yoon ñeenti rakkaa di ñaari sëlmal rakkaa bu ne fatiha benn yoon alam nashrah ñetti yoon xul wallahu at mooy itam ñetti yoon wasalaamaaleykum wa